jusqu'à la parce que simplement la turpitude de Jean Houpaul mi ngi impacté tey ñuy perdre ay 6 millions de francs CFA par jour. mais li ngay wax ni c'est c'est c'est les conséquences euh, li xew mais les causes est-ce que doo ci taxaw tuuti aussi. ay ja tout est partie de lan. de lan d'accusation de viol. oui acte de diffamation. oui ñoom ñu jàpp ne y a la main de l'État ci biir un complot. xam nga loolu laa lay wax mais mais mais mais mais menté menté il en restera toujours quelque chose mais honnêtement. dégg naa ko ba tey récemment tu as invité quelqu'un qui le rédigeait. Mm mais nul ne peut se prévaloir de ses propres mais kan moo la jàpp pour ngay di accuser le boy ñan la. Mame Mbaye Niang. c'est pas mon problème. mais ku la wala nga nga et nga taxaw toi sur blanc ñëpp gis la nga ne yaa ngi nii yore dossier bi. Mhm. mais si quand il faut assumer tu assumes. foofu ban loxo Macky Sall et puis Macky Sall a bon do ban loxo Macky Sall fa nekk. ba ngay dem defi suite booti di wax ne que dañ lay eh, eh, eh, caressé xaw ma dañ lay maase ak ay yee yeewu mbaam xaw ma yeewu xaw ma nag <laughs> mais mais Macky Sall moo téye sa loxo yóbbu la foofu on nous dit que c'est politique mm-hmm. mais bu ñu fontoo dëkki sama tool. mais tax sénégalais yi. ñenn ko man lu ma neex ma wax ko ci dëkk bi. Mm-hmm. ci respect des institutions et des textes. kan moo ma yóbbu fan mais. pourquoi tey parce que tu as des problèmes nga bëgg tey amata tout le pays xam nga loolu ko permettre. Mhm. on est dans un pays boo xam ne sur sept Sénégalais les huit et demi analphabètes nañu. émotion nañu doxee mais dans un pays normal. est-ce que loolu rek moo tax est-ce que moo tax. mais dama la bëgg d'abord c'est essentiel. oui mais ensuite mais c'est le lieu de beaucoup de choses les réseaux sociaux aujourd'hui le populisme partout.